président Bougan, Pape Ngaye da nga wax ni état c'est du sérieux tout à fait opposition aussi c'est du sérieux absolument est-ce que sérieux moi, première dame yor sac nga def ci live di abordé. aborder est-ce que l'autre ci galanterie ak ci nangam est-ce que yaakaar nga ni loolu c'est du sérieux Pap, sac sac saagu jigéen sac est-ce que jàpp nga ni c'est du sérieux aussi est-ce que le sérieux la boo ma mayee ma tante là. la mhm. xam nga xel mu sac lan nga wax ci xel mu sàkk. mais ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi sak xel mu sàkk mooy ku euh, euh, esprit bu étroit. waaw dang may may rek. parce que xamna fi wax joju jógee. motax tax la xel mu sàkk. Mhm. xel mu étroit. moy mhm. xalat ci sàkk bi di ko jëmee foofu. man xawma ma première dame mais statut première dame moo ma intéressé su taxawaay man ci entrepreneur bi ma doon ci réew mi bu première dame wala ma xol basirou Diomaye fay limay gis ci mom moy statut ambassadeur bi nek ci mom lima gis ci mom moy statut ambassadeur bi mu wara nek pour jaay liggéey bi ñuy def ci Sénégal parce que dañu am ay doomu Sénégal yo xamné ci maroquinerie dañuy def liggéey bu am solo du tuddu tudd pour baña def publicité mais jàpp naa ne ñooñu dañ leen war a dooleel parce que ñi nga xam ne ñooy suñuy ambassadeur par rapport ak yow ci valeur bi nga gën a ñëw maa ngi ñëw ci valeur sac bi nga ñëw prix bi ak yooyu waaw maa ngi ñëw yow tamit ci loolu nga ñëw bu fekkonte ni da nga ñëw ci consommer local bi loolu yaakaar naa ni coow du ci am man boo ma xoolee man su ma jëmm montre bi ma takk boo ko yóbboo banque dañ da mën nga cee garantie kër mais sama alal la man maa ko moom man wootewu ma souverainisme wootewu ma ne nañu saxan yahanal alalu réew mi moo tax serait important par rapport à ñoom logique binyonek mais quand tu vois euh, le président de la République habillé en costume africain mais c'est joli et ça vend suñu liggéeyu doomu réew su ma man mooy vitrine bi don nyom bu ëllëgee ñu mën a jaay. d'accord le made in Galsen okay. parce que jàpp naa ne ñoom bu ñu jaayul li ñu liggéeyee ci réew mi. Mhm. bu ëllëgee. d'accord keneen du jaay li ñu liggéeyee ci réew